asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy eh, gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax eh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ñoo koy njëkk a gis wéy di liker wéy di commenter également eh, te di partager vidéo yi c'est très important mbokk yi xam naa ci ci ci ci miniature bi dañ ci gis ki nga xamante ne mooy Boubacar kamara mais li tax ñu indi ko damay laaj benn question samay samay abonné ak ñi nga xamante ne tey jii ñoo ñëw seetaan vidéo bi. benn question ci Boubacar Camara tey tey ji xam naa sax mënatut a nekk bu Boubacar Camara demoon ba décider def marche en ngir bëgg choisir équipe nationale bu Sénégal yéen nan ngeen réagir ak yéen lan ngeen koy wax même si que xam naa ne loolu dina jafe parce que Boubacar Camara bi mënatut a football Sénégal fekkee d'après loi loi loi FIFA parce que football na trois matchs officiels à France également passé na à sous 23 ans mais tey jii réglement FIFA yi nooy lay changé te que mënoon nañoo dem ba ca kanam FIFA changé règlement bi et bu boobaa Bocar Camara mu am ay jafe-jafe ngir dem équipe de France tey bëgg a dem def marche en arrière ngir jouer ci équipe nationale bu Sénégal et que est-ce que yéen boobaa yéen boobaa nan ngeen réagir ak Boubacar Camara bi nga xamante ne tey jii mën nañu dafa trahir Sénégal trahir Sénégalais yi donc li nag rek dañ leen laaj ngeen ci commentaire yi ngeen wax ci seen xalaat ak seen gis-gis dinañ wax beneen yoon ci suñu yeneen vidéo jaa ngeen jëf.